jëf tey ñu ngi fii ci Thiaroye-sur-Mer ñëw seet si Baye Mandione l'adversaire de Modou Anta le 10 février incha allah rabbi fële ca stade Ndiaw Macodou Diaw ca Thiès la ñuy lay amee Baye Mandione tey yow la ñu seet si ñu bàyyi la nga nuyu ak lu di nuyu àdduna yi lay seetaan en direct ci internet bi ak ci site waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam di sant di gërëm samay ñaari waajur. dañ ñaan Sénégal yàlla wàcc fi jàmm ak xéwal wàccal ko fi kilifa yi diine yi ak kilifa yi aada yi. alors Baye Mandione fan la toll ci préparation combat bi li ci des bareetul tey la mardi mercredi jeudi vendredi samedi ñetti fan moo ci des. waaw wax dëgg yàlla man moom pare naa ba loolu léegi sax pare bi yàgg pare naa pare naa vraiment waaw pare bi yàgg. mais dañ la fekk sax ngay entraîné. waaw non non non dama dama tàllal dama tàngal muscle rek. waa xam nga bu ne suba ko commencé ba entraînement ndax du pour moom rek quoi moom ak ngi si kanam la. waaw mais pour moom fi mu nekk nii looloo taxaw quoi. tuuti la ci am rek. tuuti. <laughs> non bu samedi ngeen comprendre incha allah. <laughs> yoon dama ne combat bi da nga ci am confiance quoi confiance 100 pour cent. bari ci confiance laa juddoo ci laay dee man du ma mus a wari chaque jour confiance ba keroog may dee lu ma dugg confiance laa ci am gëm sa bopp mu tekki dafa bari mënoo yow gëm sa bopp boo pare yaa ngi dégg dafa am confiance yoon boo yoo gëm sa bopp amoo confiance rek yow gëmoo sa bopp. mooy wax si gars yi naan yaa ngi daje xale boo xam dafa nekk ci yoonu làmb. daana si yoon man dama dama dama wax de sax comme moom moom si yoon la ne. dégg la ma la wax moom si yoon la nekk waroon naa làmbi feneen jàmbaar mbir yi changé na de lu leer laa la wax. mais ñoom bu la laajee nga ni mbir i changé lan moo changé lan moo changé. waaw samedi ngeen di comprendre incha allah rek bu samedi ci la ñëpp affaire la man xam naa ni ku nekk kenn la gën a xam sa bopp. changement bi physiquement la wala psychologiquement ci xel mi ci bëre bi wala ci doole. ci lépp côté yëpp tout tout tous les plans le parrainage yàgg na. wallaahi parrainage bi yàgg amatuma dara lu ma lu may def. loo jàkkaarloo ak moom mu dëggal boppam li muy wax rek lépp man li ma koy ñaaree ba du sifflé bu mu am tànk ginnaaw na taxaw rek man moom bu ma su may bëri ci làmb. ba ne daa xanaan bàyyi ma yoon mu ngay jéggi saako ya billaahi wallaahi taala jour boobu laay tikki sama ngem ba ci làmb waaw kon nag man jom am bay taxaw du ma dawal sama góor man li lay war a sol na taxaw def loolu moom waaw mais la laaj ci Baye Mandione wala combat bi Baye Mandione comme na mu daan def arbitre day sifflé mu ñëw def li mu def déggoo lu ma la wax man bu arbitre taxaw ay bii laay teg ak bay man daal li ñaan lay war a sol na taxaw rek loolu man man la taxaw rek laa koy ñaan. ngeen def open press ngeen def euh, face à face bu tàng biir Thiès. Uh-huh. ba ay kàddu yu fa yu fa loolu mooy wane ne combat bi combat bu tàng la nga rafetlu. yaa ngi dégg moo ma sak ma bëgg samay ñaari waajur fonk leen trop sama pap ak sama yaay ku leen mënti saaga ak ko mënti doon ma ma ma Massane Diouf la dégg nga de <laughs> ay wax laa la wax. sama papa sama yaay ku leen saaga ak noom man ti toll noom man manti mel ma delloo la kaw. kon da nga ba wax ne saaga yow. mais man sama jëm bopp pour muy leer xam nga tey euh, loolu du ci kaw plateau bi ci suuf la. yaa ngi dégg dafa ñëw bi mu ñëwee ah, ñëw di ñëw jëm si man man tey ma wàcc dajeeg moom bi ma koy jum nag la ma saaga bi ma egsi ci moom nag ci la ci la ci la ci la benn sud ñëw dëpp seen caméra bu verte bi ñoom nii quoi. yaa ngi dégg yemboog nag man may fayu loolu lañ génne mais ma si jégalu nag sénégalais yëpp yaa ngi dégg te xam na ñun ay xale lan yaa ngi dégg tey xale seen yaram day tàng xam nga ki may bëral moo amul yar yaa ngi dégg moo tax man ma doxalee noonu sama diggante moom. mais Ndione est-ce du xale bi da lay jéem a provoquer. parce que xale kii ñoo bëreeloo boppam moom ñoo defandoo lépp. yaa ngi dégg man 2003 laa commencé bëre arène 2003 laa commencé bëre arène. magoo ko dégg nga lu la wax ah nan laa mbëggee yaa ngi dégg man samay mag su billaahi boo duggoon kër ga may la ñuy samay mag la nga ne ma non non. waaw léegi sa morom bi léegi sa morom sa adversaire mais saaga yooyu muy saaga ak ni mu lay def noonu est-ce que du pour provoquer la parce que nee nañu bàyyi ma noonu boo ko provoquer rek yaram bi tàng. waaw yooyu ay wax wax wax xale rek man dépasse naa loolu ci làmba fu mu nit di saaga may mer wala fu mu nit di porogafee man may mer dépasse naa loolu ci làmba bu fekkee loolu la yaakaar muy stratégie loolu nga wax stratégie ah. muy lan. stratégie xaw ma bu fekkee moom loolu la yaakaar moom moom ni ma fa la mën a jaar bàyyi ma njoon ci ay di ko saaga mi mer ak yooyu man dépasse naa loolu ci làmb man daal li ma koy ñaan mooy lan rek incha allah rabbi yaa ngi dégg li muy wax boor bu sifflé mu taxaw comme man ni may taxawee di dëggal sama bopp moom mu taxaw ma loolu laa ñaan yàlla moom mu def loolu moom. da ngay wax naan combat si daj mosoo ko daj sa combat yi. waaw man ni ma mel dama ko am sa mel bu juddoo ba léegi nii. man moom changé nga. waaw nga xam ni kon man tëdd moo di nelaw ay weeri weer caare gi xamuñu ci lu ma ne. ma laaxu ne sama ruxa liggéey sama liggéey jàpp sama ñaambur yaa ngi dégg maanaam liggéey may liggéey du Modou Anta mi moom moo tax da moom dégg nga as tuut la ci am rek as tuut te bu samedi incha allah rabi nga xam ne as la ci moom waaw. léegi man li ma lay laaj nga jëm Thiès. te Thiès ma gis mbër muñ fa dalal. dinañ la fitnaal. ba pare bëreeg yow daan la ba pare bu buñ la duñ la bàyyi. man du ma mbër yooyu man rek ñi mën tak takk man bàyyi ma joon man kese ànd de man man kese cundung dem bëri jéeg Modou Anta Thiès def ko lu ma neex ñibbi kenn man du ma mbër yooyu xam nga naaru sokaat ñu daan koo pare yaa ngi dégg gars yi dóor ko dóor miti mi prente gars yi du yóbbu police man man naaru sokaas non billaahi wallaahi talaay mar rek ñi mën naa ànd dem bëri ji kees ak ñi bisuwaat man cundug man kese te jàmm salaam kenn du ma traversé pour muy leer leer laa la wax dina fa perte ba përie incha allah leer laa la wax beneen bi ci des Baye dañu dégg kër ñoo ay problème mu dix mille francs ñoo fay ay dix mille ak loolu est ce na ko leeral waaw xam nga tey moom ndeysaan man dama ko yërëm ci benn côté ndax man su ma soon doomu aadama booy tuumaal yaa ngi dégg wala waxal doomu aadama nga waxal ko lu am ku xam sama jikko man ba ma dalee bëre ba léegi musuma bëre mbër ba xam sax bunta kër mbër ma fa mu féete soxlaaw ma ko man li ma intéressé mooy bis bi ma jàkkaaroo sama adversaire ñëw wane fulla ak fayda ma loolu ma intéressé si combat mais li ma waxal du sama jikko baa ma dafa fay ay maire yu dëkk kees ay dëkkandoom ay ay ay dix ñëw këram daf fay gàllaaj man li ma gën a métti rek mu waat si wax wax ne ma nan ak lan daan na moom moo jàpp mais en mai man de bu fekkoon moo def loolu moom moo fay ay nit yi def ay gàllaaj suma biir kër billaahi damay kontaan damay gën a yokk jëm gën maa yokk puissance mais man du ma genre boobu waaye man ba xam yoon de fekkee maa def loolu man yàlla man dam ko est-ce que xam nga ne yaa ngi dajeeg tamit mbër bu mystique waaye man mystique du jàpp ay sëriñ yi man gëw ma ay mystique yi mystique du ma jàpp ndax moo tax yàlla moo ko wax ci alxuraan nee na loolu def doomu aadama kenn mënu la kaa def man jëw ma ci kenn liggéeyu ma nit yaa ngi dégg daw ma ki sëriñ naka defal mais am naa droit nag dem ñaanlu ay muslaay pour làmb ngi nit ñeeg borom làmb ñu bonneeg borom bëdi ay magicien bi la yor de magicien bi waaw kooku de am ndikke nga magicien waaye kooku day dara kooku dara du dara am ndikke la kooku day yor ay genre yooyu di ko defar ci mbër dégg nga li man la jëlee ci kii ba sax euh, euh, kii darke ñaan darke ñaan waaw mystique mbër man de man bu doon affaire mystique ak mystique man arbi teg teg naa sama man aman ah, ma yooyu dégg nga li ma la man jëwuma ci benn mbër dara du ma dem ci sëriñ naka defal ma lii doomu aadama waxuma la ay mbër yaa ngi dégg te loolu nag nit ke mën la kaa def bay bu dee mystique la yaakaar na dem toogi ne waaw man fulla ak fayda lay ñëwee mais pas affaire ay gàllaaj ak ay mystique dinaa ñaan la ndax ab julli la ndax Seydina Mohamed nee na yaa ngi dégg julli mooy ñaan dinaa ñaan lu ko ñëpp mais jamal lu ma ñaan lu ñaan lu bu la Sénégal gépp ñaanaloon tey jii nga ñëw wane ci ne ñu sànni la fële tey mbéy kan moo ko mën a ngebati sëriñ sëriñ ay sëriñam ñu ngi fi ah ak yeneen mbëri mbëri ay ay Mohamed Ali ay ñoom ñëpp seen sëriñ ñu ngi fi pourquoi continué wuñ bëre ba léegi nii. man li ma koy wax mooy Modou Anta tamit dañ ko gis mu nekk mbër moo xam ne làmbam day metti bi ci mujj diggante mi ngi gis ñun mu pànk la. man soxla mën naa bëri 45 minutes. man soxla ma lu nooy soxla ma man maa bëgg loolu sax di bëri mbër moo xamante ni yaa ngi dégg affaire bi du metti man bëgguma loolu. man balaa maa gën a kontaan affaire bi doon kaani kaani kenn dóor moroom yi ba mu raam man loolu laa gëm waaw mais xeex bi mënut a ñàkk si làmb ji de yéen. non a xeex kii ma ak moom foog loxoy jug kii laay lii laa foog foog loxoy jug moom incha allah moom bëgg na ko moom xeex bi moom bëgg na ma ma ma ma gën ko cee dee kontaan. ak ñaataan xeex ak njool la ah, ah en daal man daal li ma koy ñaan ngir yàlla ak yonte bi rek na taxaw dëggal boppam kese laa koy ñaan waaw bu mu aneer daal dëkkam laa ko fekk man di mën a dana taxaw loolu rek laa koy ñaan. bi ci suuf parce que yaa ngi wax xeex mais bëre yaa ngi dégg ay kaw ak bëre kaw ak bëre suufa ci man pare naa ci plat yëpp lu mu andi fekk fi duubalam incha allah. te léegi looy li may tàggoo di kontaan quoi ndax euh, wax dëgg yàlla open press bi ama ma dama dama voyage woon dama génnoon xam nga euh, te tey tey waroon ngeen a fekk tey yaa ngi dégg booy danoo sonn ndax fan yi entraînement moo tar moo tax tey boo yëpp laa dem leen tëdd ngeen nelaw yi ñu noppaliku mais man su ma xalaatee yàgg rek du ma mënu ma récupérer instant bii nii yéen a fekk may entraînement te samedi a bëri may des samay entraînement yi méttee métti ndax tey bis bi am na lu ma jaral am naa fu ma tës wàccaay bi ak mobilisation pour dem Thiès xam nga ne diggante bi dafa sori ak fans yi ak supporters naka la ñuy def ñun pare nañ bu yàgg pare nañ bu yàgg di wax rek autorité autorité Thiaré ñu jàppale ñu yaa ngi dégg ndax fii jàmbaar amu fi kun jàppale am ndax ñun bëri côté bi euh, problème boobu lañ am am ñu ay jàppale yaa ngi dégg bu dee mbëri yi ne yéen mbëri bi am nañ ay kilifa ay ministre yu leen di jàppale mais fii amuñu benn jàppale ba am ngeen ba amee combat yaa ngi dégg Abdou Naar Mbengue maa ngi koy gërëm bu baax bu yoof wala yàlla na ko yàlla fay jàppale na ma trop Tahirou Sarr yàlla na ko yàlla fay jàppale na ma trop yaa ngi dégg Abdoulaye Diop maire Guinaw Rail yàlla na ko yàlla fay jàppale na ma sama grand Cheikh Ndiaye ay Abdou Ngom transitaire yaa ngi dégg ak Mouzir Niass man maa ngi ko yow Mouzir Niass yàlla moo ñu boole maak moom xam nga muy suma sëriñ di sama xarit di sama doomu ndey di ku ma bëggal boppam man tamit mam cofel ci moom maa ngi koy woo ci combat bi yaa ngi dégg di ko wax mu jàpp bu baax a baax jàppale taalibeem jàppale doomu ndeyam xam nga waa ahlu baytu rasul nag bàyyiwuma leen maa ngi woo ñëpp ci waa kër Seydina Limaamu Mahdi alayhi li ko dagg ca gën a ndaw ba ca gën a mag maa ngi woo ñëpp di sàkku ñaan waa Touba waa Tivaouane maanaam fépp kër dini na Sénégal rek man bàyyi ma ngeen maa lay woo di sàkku ñaan yaa ngi dégg maa ngi sàkku ñaan di woo sama mbokki lépp yëpp yaa ngi dégg fukki penc ak ñaar yi nekk Dakar yëpp yaa ngi dégg maa ngi woo ñëpp képp kuy rek maa ngi lay woo képp kuy joolaa saraxule séeréer yaa ngi dégg waa kees kees googu may bëre jëy maa ngi woo si Assane Kane bu baax a baax bu kees yaa ngi dégg doo Serigne Mor Kane bu kees xam nga ak politique na kees maa woo xam ma ñëw defal mënu anta bagage ñu bi si waa Dakar ñu taxawal benn combat incha allah combat bi mën na am kawoo bàyyi ma ñëw lépp a ci xaj man déggu la ma la wax man samay combat séntu ci lu ne lépp a ci am incha lu mu laaj rek bàyyi ma ñëw a xale yi waaw ñii ñii ñii maag ñoom yow xoolal bañ jugee gàlle ba léegi nii ñii yàlla moo boole ñoom xale yu ndaw yi man ñoom ñooy samay xarit ñooy samay partenaire ñooy sama xol ñii ñii maag ñoom la quoi bu ñu xëyee balaa ngeen dara gàlle la ñuy ñëw toogoon man xam nga waxtaan kafre après ñu ñibbisi man ñii ñooy samay partenaire xale yu ndaw yi ndax ñii tey yàlla moo leen sàmbal boppam ndax amuñu bàkkaar yaa ngi dégg xam nga tey bu doon ay magi jëma du ma du ma nangu ngi taxaw sama ginnaaw tiim ma nii ndax mag ñi genn wàll gi bay saay-saay lan mais xale yi ndaw yi amuñu bàkkaar amuñu dara lu la neex xam nga ngay dund ak ñoom bu lay ñaanal xolo xol bu sëgale leen ñaanal loolu la la ñaanalee di nga jox ab xale tàngal mante fraise mu ñaan ñaan goo xamante ni yàlla da koy léegi nga jox nit ab garant un million mu lekk ba pare nga tourné mu saaga la waaw dañ ko dabi dañ ko fekk mu jàpp na yow ay mag nga doon daan ay mag moom mooy moom moom mooy paa moom ah, moom moom dama la dégg nga ne moom bëreel du moroomam. Uh-huh. ñu ma doon moom ñu ma doon lekk seen avance moom ñu ma doon lekk avance Modou Lo ñu ma doon lekk avance Gris ñu ma doon lekk avance moom pourtant nee ci yow jaar pour dem ci ñooñu. du dem fenn fenn du fa dem day sóob du dem fenn.